ñun yéen ñii boo koy def bi day daw bi ci kaw bi day daw ndax ba mu yàgg sa bëñ di yëngatu ba mu yàgg sa bëñ di wat donc boo bëggee brosse normalement ba pare nga ci sànni ci siñ bi ngeen di jóge dem ci bëñ ngeen nekkee ci suuf tamit fii ngeen nekkee fii ci suuf di ngeen def ci siñ bi ngeen di jóge tamit di yëgaat ci bëñ di yëgaat ci bëñ nii nii ci diggante yi diggante yi mais bu ngeen nekkee ci biir maanaam brosse ngeen fii ba pare ci kaw roos ngeen fii ci suuf tamit ci kanam après ci biir nii da ngeen koy def nii benn bu koy dàq ci génn nii ci biir fii ci kanam ngeen def ko nii maanaam da ngay jóge tamit ci sëñ bi ci biir fii di génn ci bëñ nii nii ci kaw aussi même chose ngeen ñëwaat fii def nii comme bu koy génn nii léegi fii nii nga xam ne moom ngeen di màtt ci ginnaaw fii bu ngeen ci egsee nii ngeen di def fii ngeen di màtt kaw tamit nii ngeen di def nii nii donc. Amath. oui est-ce que c'est la démonstration. est-ce qu'on a montré à ces gens. d'accord.